oh mais xoolama lii lu ñaaw en tant que jigéen en tant que jigéen di sàcc non li gars yi xool leen vidéo bi xool vidéo bi

je pense que jubluwuma si rien que pour xaw yi sutura ndax du ma vidéo bi pour ñiy seetaan ñu xam parce que ko sama page Facebook ku nekk di wax ana sutura ana sutura damay gis les commentaires ñu naan imaginel kii bu dee ay njabootam dañ koo gis du mais avant tout ñii dem ci jaamu di fa te leen xoolee ay magi jëmm lañ dara jotu leen boo leen ci xoolee kenn si ndax téléphone yaakaar naa ne ku pauvre du ko jënd ndax jigéen des koy suturaal waaye ku sàccit ndax dañ la war a suturaal jël ay bagage am jaarale ko ci conteneur fay dédouané ñëw ay jigéen ñëw muuru ba jekk di jël alalu jàmbur du sàcc kenn sàcc da koo metti ndax boo xoolee mi ngi na leen e eh, si gil ma filmer leen filmer leen ngir wana leen ni ñii dañuy sàcc sutura lu baax la film bi man mii di wax neexuma de mais lii lan moo ko fi jar am na ñuy wax naan ci commentaire yi dañoo sonn xëy na dañoo amul luñ dundale seenu njaboot xamuma même ku amul loo dundale sa njaboot ndax warna naa mën tax ngay dem ci marché di sàcc ay tiis yu jàmbur rawatina ci korite gi ñu jub si am na loo xamante kiñ koy def moo ko war a njëkk a bañ ku nu sàccoon sa alal fi du la neex xëy na nag peut-être kii commentaire comprendrewul kii koy filmer ban tolluwaay la am ndax du man ko filmé dama ko gis Nyak bu mu la taxa jaay sa ngor di jël yefi jàmbur bañ la ci toroxal toroxal jigéen da baaxul waaye tamit li ñoo ko yóbbu ndax buñ doyloo woon ci li nga xamante ne loolu lañu am kenn du leen filmer sama moroom am na lii dama koy am moo leen di dugal si lii sama morom am na téléphone bu cher lii dama koy am moo di dugal si lii xëy ñii buñ ko jëlee dañuy jël di ko jaay jiwaat xawma luñ ci jublu mais lu mën a xew mooy yëfi jàmbur ba tudd